ma ñëwoon tey fii ci région de Kaolack jaaroon ci département yëpp jaaroon aussi ci kër diine yi nga xam ne tarixa yëpp ñi ngi daje fii ma jaaroon ci kër yëpp doon leen siyaar doon leen tàllal suñu loxo pour ñu ñaanal ñu yàlla defal ñu ndam ci li ñu jëm mais ñëwoon fi aussi pour jéem taataan seeni mébét xam seen soxla pour bu soobee yàlla ëllëg bu ñu yàlla joxee majorité ñu mën ko def ay urgence faj ko nu mu gën a gaawee. li ñuy wax nag mooy li ñuy constaté fépp fu ñu dem ci Kaolack gis nañ ne béykat yi li ñu gën a jàmbat mooy coono mooy ren nag jiw yi baaxul engrais bi baaxul. ba li ñu yaakaar ci nawet bi seen seen seeni njort yaakaar nañ ne duñ ko jot yaakaar nañ ne nawetu ren bii dana metti lool ndax liñ jot a gis dalul seen xel may ñaan nag yàlla mi moom lépp mu dimbale ñu ba li ci des mu jooyantil ñu ko ba liñ ciy tiit ñu bañ ko gis mbay mi sooxe na li tax mu sooxe mooy léegi Sénégal dañu foog ne pétrole diamant or ressources minières yi ñoom ñooy développer réew loolu ñu ngi nax suñu bopp réew yu nekk yu fi bëri ci Afrique am nañu ressources yu dul jeex waaye tey boo fa demee Sénégal moo leen gën demin téeméeri junni yoon moo tax nag ma bëgg woo sunu mbokk sénégalais yi rawatina nguur gi ak ki jiite réew mi wax ko priorité bi agriculture la war doon ndax agriculture moo mën dundal am réew autosuffisance alimentaire boo amul doo taxaw ak ressource boo mën di am du la feeñ fenn donc loolu lañ bëggoon jottali ko yëkkati suñu baat ci kaw nit ñi xam jafe-jafe yi ñu nekk ci mbéy mi yi nekk ci béykat yi ñu xamal leen ne bu soobee yàlla bu ñu amee majorité à l'Assemblée nationale danañ ko def suñu yitte xam nañ niñ koy jooyantee ndax nii que nit ñi ñi fi nekk nii niñ ko niñ ko jàppee ah, nga xam ne def biñ koy def àndut ak yar àndut ak teggin àndut ak xam-xam ñun bu soobee yàlla buñ koy jotee danañ soppi doxalin boobu. am na jafe-jafe yi bëri na. am na beneen secteur boo xam ne aussi fii ci Kaolack doon nañ koy jooy muy seen poor bii nga xam ne ay at at ñu ngi koy wax te moo ne de infrastructure kese la infrastructure nag man xam naa niñ koy defee loolu sama liggéey la uti xaalis jox ko état bi mu tabax loolu mën naa ko ma leen di xamal doomu Kaolack leneen bu soobee yàlla bu ñu bu ñu amee majorité à l'Assemblée nationale loolu danañ ko jël def ko priorité ba fii port bi ñu bi ñu yàq bi ñu bëggoon a def fii ñu ñu ñëw yéene boobu ñu ñëw ko. bi nga ne nañ ko ci la transformation transformation moom moom mooy li nga xamante ne production réew bu produire du dem réew pour mu dem il faut muy produire te fii nag Sénégal produire lañ dul def dañuy wax rek moo taxit luñ ci gis tardé rew day produire li nga xamantene mom la moy fi suñu ressource li nga xamantene mom lañu yalla sedd ci domaine yépp dañ ko wara transformer mu jur xaalis fi nak xorom mo fi nek bari fi lol sakan fi lol suñu jigen ni aussi xarañ ci liñu ñu a def moy def fi ay unité de transformation yu bari ba nga xamante ne buñ ko buñ ko transformé mën koo jaayaat mu jural koom réew mi jigéen ñi aussi nga xam ne ñi ngi ci secteur informel bi lañ nekk ñu fexe ba ñoom tim ñuy produire def ay formation comme ñun niñ ko defee ci Dakar ak Mbour ak yeneen i gox formé leen ba ñuy mën a transformer ay produits naturel yu nekk ci dëkk bi defaraat ko jaayaat ko pour mën am koom mais ñun du yem ci loolu ndax bu ñu ko defaree ba pare ñun ñoo war a def créer ay coopérative comme ni mu amee Dubaï ndax man falaa dëkk xam naa niñ ko defee dañuy def ay coopérative yoo xam ne produit yooyu ñuy transformé lañ fay yóbbu boole ca yeneen produit yoo xam ne à l'extérieur lay jóge nga xam ne produit d'appel lañ koy def teg ko fa ba nga xamante ne genre marché lay doon nit ñi di fa ñëw boo jëndee produit étranger jëndaale produit boo xam ne fii ci réew mi lañ ko defaree loolu mooy tax ñoom ñu mën a écouler seen marchandise foo ci romb xale yi amuñu xëy ñi ngi toog ci bopp ko ñi yor seeni engin di xaar ay client te moo ne da xale yooyu boo ci boo ci boo leen demee ba gëstu leen ba wax ak ñoom ñii ay bac lañ am ñii ay master lañ am léeg-léeg sax nga gis ko am doctorat am toog ngir rek bañ a toog këram dem ci mbedd yi yor jakartaam di jéem a ut lum def ñu ne nag ñun bu ñu yàlla dimbalee bañ am majorité ci xëyu ndaw yooyu la ñuy dañuy dem def ko suñu priorité naka mooy fexe ba muy ba muy ba mu am oto emploi ndaw yooyu bu ñu leen bu ñu bu ñu leen formé ba pare jàngal leen tàggat leen li ñuy produire waxuma nag liggéey kese te produire laa wax parce que loolu laa gëm loolu ñuy produire ñu xam ne mën nañ ko am nañ ci lijaasa ñu fexe ba utal leen ay financement ñu mën a liggéey produire jaay ko am si dara ñi nga xamantene ñoo nekk ci Jakarta yi aussi ñu xoolaat nag nan lañuy réformer seen métier boobu ba nga xamantene ne leen mujj mën a